waaw ajaratu loo tey daal junjoon nga tey daal muudu mm, nga woo son yi bu jotuma ko ma wooyee son bu jotuma ko muudu daal duggal faxas bi son yi bu fa muudu faxasee nag ba jot daal kii nga xamante ni mooy sunu baay alxaaji mbay peex lu xewoon alxaaji mbay peex moom yi amee taxawaay boo xamante ni taxawaay bu bu rafet la si réew mi yorit kàdd gi nee na moom ma yor kàddu gi daal si wàllum jottali si lépp président bu daan dem foofu si Touba mais dañoo gis ni président bi bu ñëwee ba léegi daal gisaguñ ko mu jottali loolu nag gars yi ñu ngi windeel ab vidéoom boo xamante ni andi woon na ci ay tontu dañuy ànd ak Moodu mu andi vidéo boobu ñu xool ba xam yan tontu la ci andi woon. mais ndax xam laa gis bi jumaay ñëwee a jaaxal parce que jàppoon nañu micro bi yaa ko yor. waaw déedéet déedéet maa yor micro Serigne Touba waaye invitation bu ñu la ca wóol boo ca tojee palaat fay kontaan naa ci moom nag na mu doxalee Touba wane na fa yar ak i teggin akuk taalibe loolu moom kenn mënu ko ci sikk na mu war a doxal baax na waaye li ma Serigne Touba jox ma téye ko nag bu Serigne Touba xewle rek ngeen gis ma buur falul boppam yàllaa koy fal ku yàlla joxum réew bu ko fa kastal bul cori tànkam ñaanal mu yàlla mu yegg déggu Alaaji Abdu Si daa wax ku dugg ci gaal yor sa ëmb ñaanal gaal ga mucc bu gaal ga muccee ëmb ba mucc nañ leen ñaanal yàlla ñu mucc mais benn candidat laa am Amadou moom lay àndal moom lay jàppale moom lay resté noo xeex pour dem assemblée wuti député Amadou rek. ma wax non parce que yéen nag ay nit ñu baax ngeen. non Baye Ablaye yéen ay nit ñu baax. mais bu ma jumaay soxlaa dama koy waxal lu baax fekki ko jumaay du ma ko xas rawatina tur yi sëñ Basiiru ba ku tudd Basiiru peex du la wax lu ñaaw dama koy jàppale di ko wax lu baax mu di ko dégg mais li ma sëñ Bamba jox nag regg na ma bala ma ko jeexal jóg fi. mais damaa dégg nag ñu wax ni communicateur traditionnel moom li mu war a def mooy war a far fenn. dafa war a nekk ci kala kala ko kala ko xamul géwél day far. géwél day am waaye du xaste géwél day am péete ko wax du géwél dañuy far nun wallaay ndeysaan ajaratu mi ngi noonu Amar ki nga xamante ni mooy sunu baay moom nee na daal euh, sëñ Bàmba la faral ak du baax waaye nag bu ko fekkee jumaay bëgg na mu wax ko lu baax daal su ko wooyee mën na ko wax lu baax euh, lii est-ce que jar na gars yi ñàkk ko gis ñu koy bindee ci internet bi ak yooyu. parce que dañ ko daan gis te gisatuñ ko. Hmm. moo tax ñu koy laajte naan fa la nekk loolu kese la mm-hmm. mais tey jii comme Abdoulaye mbay Pekh nee na géwél mën na faru mais warta xase wax na dëgg mm-hmm. waaye par par loolu yi bañ aussi ah. waaw parce que jëfi tey maanaam jëfi démb yi mooy indi jëf lu tax jëfi tey di am maanaam ñu tudd sonk nga ni duñ ko fi tudd bu ko fi tudd bu ko fi tudd ci jamono mm-hmm. ñu dem ba bis suñu borom dogal li mu dogal gëm naa ni bu la woowoon sax kersa dina la may nga ñëw fekk parce que doxalinu démb yàlla parce que ku mel ne El Hadj Mansour Mbaye nekk na fi parti socialiste dem sax bokk ci kilifa PS. ba léegi mais teewul bi Ablaye wadd ñëwee. musul ñëw fenn Ablaye Wade nu ko déet. Mhm. parce que ci comportement am la woon bi Ablaye Wade di nekk dans l' opposition bi yi ñëwee teen la même chose. maanaam moom fexoon na ba baatu xaste boobu boole ko woon ci ay waxam dina tagg mbëram waaye du xas geneenu mbër mais Ablaye bay Pekh dafa am ay doxalin yu amoon avant moo indi tey ji xale yi indiwaat ko léegi nag comme Amadou la àndal sañ na ko ku ne sañ ngaa pété ki la neex mais man bu doon man maay ñoom man sama stratégie man bi ma jàpp ne moom moo gën tuuti naa ci xelal leen mais bu doon man may ñoom duñ far duñ ànd ak benn politicien wala dara parce que ñoom danoo foog ñi ñoo soxla gars yi mais gars yi leen soxla ñoom nag dañuy dem ba jàppale benn Amadou Ba Mbaye Pekh moo soxla benn Amadou Ba pour jàppale ko ak yooyu mu fekk Amadou Ba moo soxla Abdoulaye mbay peex am na nu mu doon taxawee ku ñëw ku ñëw ku ne ci kanamu sëñ bi li ngay njëkk laaj mooy ana mbay peex maanaam jomaay du xamee mbay peex bu Amadou Ba wala bu Macky Sall mais comportement yi ñu amoon mooy indi tey ji yenn jëfin yi ak yenn doxalin yi jëmee ci ñoom parce que ñoom dañoo am lu ëpp Amadou Ba am lu ëpp Macky sàll am lu ëpp Jomaay comme ni mu ko waxee danoo regg ci Serigne Touba maanaam cër boobu ñu am ci wetu Serigne bi imagine ku mel ne sëñ Moustapha wala ñun la sëñ Babacar Sy Mansour wala ñun la beneen Serigne ñu ni la buy wax yaa koy jottali wala fi dañ nag waa ngi nii ku mu doyul buñ ko naroon def ko ay cër bu la ko joxee tamit du la doy maanaam ñoom biñ xasee ba am Serigne bi. waruñu woon bëgg leneen wala ñuy namm leneen danoo waroon a féeteeg sëriñ bi rek ba képp koo xam ne soxla nga sëriñ bi wala ngay ñëw ci sëriñ bi li ngay njëkka laaj mooy ana diw maanaam ñoom bu ñu féete ci sëriñ bi rek yam ci sëriñ bi te xam li ñu yor li sëriñ Cheikh doon wax ñàkk ko te xam ko moo gën am ko te xamoo ko. Mm-hmm. ñoom nag dañ ko am te xamuñu ko. moo tax xale yi di leen kookali ci internet. jërëjëf Omar Bon Khattab Guèye euh, Souka. noo déggee sunu bàyyi Abdoulaye mbay Peex kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko jëmale ko président Bassirou Diomaye fay mu ne bu soxlaa daal mu waxal ko lu baax moom dana ko waxal lu baax waaye daal Amadou Ba lay àndal te moom lay gunge. waaw am na ci droit. waaw ndax nit ku ne ku la neex rek war ngaa mën a ànd ak moom. Mm-hmm. Amadou Ba la bëgg Amadou Ba la sentir. te mhm. Amadou Ba la nekkal. loolu moom am na ci droit vraiment. Mhm. Euh, di wax tamit euh, mu ni fun fun ma woowul. Mhm. duma ca dem fun la woowul boo fa demul bu ñu tuddee kaas. boo fa tojee kaas danga koy fay. loolu mooy àdduna. mais ku daan woote. Euh, kan la. moom ku ko daan woo nga yaakaar. président Macky Sall ko daan woo wala bu demee sànni dem da ko fa daan fekk. xëy na da ko fa daan man xaw ma ci dara xaw ma ba xam ah, da ko fa daan fekk wala day kii mais nit ku ne. nit ku ne am nga droit. Mm. waaw mais nit ku ne am nga droit euh, man may ma ba bi nga. Mm. voilà da ngaa wax ba pare danga may may nag. question mm. moom bu ko wax bu ko laajee mun war na ko mën a xam ndax Omar ndax mbay fi beex fa muy dem xëy na ñoom dañ ko fay woo wala moom mu demal fa boppam xaw ma ci dara. ndax man xaw ma ci dara vraiment euh, moom mi nga xam ne rek moom moo di mbay peex am na droit. am ak ku am na droit fal fu ko neex am na droit tamit waxal ku ko neex te bu Diomaye Faye woo soxla bu ko soxla woon tamit su ko woowee war naa mën a dem te nee na dafa wax lu am solo lu am solo man géwél laa sampa ñun ñëpp ay am nañu géwél du xaste géwél lu baax rek lay wax te loolu la wax nee na man géwél laa duma xas te duma duma xas kenn du wax nit lu ñaaw vraiment te loolu ànd naa ceeg moom hmm. nit ku la neex rek ngay àndal te fun la woo rek boo fa demee boo fa toj bu fekkee woowuñu la fa boo fa tojee kaas na nga fay ah, moom laa àndal vraiment moom nga àndal de li nga ko seedeel noonu lu am solo la géwél du wax lu ñaaw du xas ah, géwél du wax lu ñaaw du wax lu ñaaw du xaste te du wax lu bon du ni bu tur jib fii Ah, ah vraiment ah, man de géwél loolu laa ko xamal te man ndax moom laa ajarat noo déggee suñu bàyyi ak it taxawaay bi nga xam ne gone yi amee nañ ko jëmale ko ko waa gone yi xam naa xam naa Omar junj na ko sànq li mu mësoon a wax xam naa moo tax gobewuñ ko bu ñëwul sax da leen di arrangé xam naa ne bu leen président Diomaye toppee hmm. mbay pex du ko topp fenn fu muy dem donc muy loo xamante ni ay waxu démbam ñoo ko rattrapé rek xam hmm. nga des fois mbir dana xew wala am lu xew ci dëkk boo dee boo dee boo dul n'importe kii wax naa ko démb ci di Diop day am noo cay taxawee boo mënul neutre wax ca wax ju rafet moom moo ni géwal du wax wax bu ñaaw euh, kii sant Samba aussi sama xarit bi kii aussi xaadim waxoon na ci wax ju rëy mhm. donc muy loo xamante ni say waxi démb bu dee ñi ngi koy wax duñ duñu baale wala duñ la kii wala ñi ngi koy wax sax ñoom garaawul mais ña leen topp mbooloo ba leen topp am na yoo xam ne duñu la ko baal donc xaw ma nag Touba dañ ko daan woo wala président ko doon woo wala kan moo ko doon woo mais bu fekkee dañ ko daan woo te woowuñu ko toog bi moom normal na bu fekkee daawuñu ko woon nag murit la te moom ñëpp xam nañ ni murit saadix la mu daan dem di fa xaar président mënoon na dem rek def na mu daan def te gëw ma ni gëw ma ni mu ñàkk ñëw mu ñàkk teew mu ñàkk teewam foofu gëw ma ni wàññi na dara ci visite président de la république kon nag comme Amadou la faral mën na faral ki mu faral mais li mu wax président mm. moom moo njabootee ñëpp. Mm. moom moo njabootee ñëpp. Mm, waaw bu dee dañ daawuñu ko woon na dem moom murid la daa na dem toog. loolu moo gën a rafet ci image. hélas euh, kii di sunu papa ji de ñu bëri dañ ne woon moom du opposé wu pouvoir rek maanaam day topp ay Abdoulaye Wade ay Abdou Diouf ay Macky Sall mais loolu lépp dindi na ko sànni ko fële. pouvoir baa ngi fi mais nee na Amadou Ba lay àndal te ma ngay wuti ay député yóbbu assemblée pour mu jiite assemblée bi <laughs> lu may loolaat. sëriñ Touba lay waxal ak du baax bu ko jomaay soxlaa na ko woo mu waxal ko lu baax. xam nga boo dégloo boo dégloo li mu wax moom sànniwul xeer euh, kii de moom euh, kër ga lay sànni xeer parce que ñoom ñoo ko daan bu dee dañ ko daan woo parce que. ñan ñoo ko daan woo. soit waa affaire ko daan woo. way la ña nga xamante ni bi ñoo ne ca kër ga ñoo ko daan woo. Mm-hmm. ñii moom defe naa ni séqutoon ak ñoom ay woote ak wuyu ah, kon ñii mënuñoo ñëw di ko woo ñu koy wooye kon boo waxee ne boo waxee ne ndaje eh, fuñ ma woowut hmm, kooku du ñii soo a falu ñoom ngay sànni xeer ah. mais peut-être que ni fële lañ la daan woo ndax ñu daan dem moom ñëpp dem nañ bay beex nag il faut gars yi bu baax buntu yi de <laughs> tere wut mu mu dugg de <laughs> mooy beex <laughs> bu gars yi surveiller wut ah, dañuy xëy xëy rek gis ko ca biir de li mu wax daa leer nga Ba rek mbay peex fii la taxaw wax ni Ablaye Wade su ma ko bawee ku ma jublooti nga war maa ragal mbay peex ko waxoon <laughs> tey la wax ne moom lay kii Amadou Ba hmm? ah. nu mu def ba dugg après sax ci Macky Sall gis nga ni mu ko légitimer ni nga fi nga xam fala jaar mooy bi ab Ablaye Wade di wax ma Ablaye kii ba mu mer fa. fa la jaaree rek buntu ba ubbeeku. <laughs> mbay bari day pexe. dem na Amadou xool ko dem nañ fi ah? booy naan Amadou Ba Amadou Ba mu ne bu leen ko fi tudd. waaw ah. Macky la Macky la waaw. Hmm. léegi mu wax nag boo am wax na wax bu am solo na. Hmm. muy géwel du xaste mm-hmm. waaw loolu moom wax la joo xam ne wax joo am solo la waaye tamit euh, géwél du xaste waaye am na yoo xamante xam nga géwél xamut lu ñaaw mm-hmm. géwél mm-hmm. dëgg du def lu wax lu ñaaw lay dëgg waaw parce que moo tax pareen saay bu génnee ci seen gémmiñ rek nit ñi duñ leen ko mën a pardonner parce que xamuñu ko comprendre parce que ak luñ mën a wax géwél dafa am taxawaay boo xamante ni bi moom lañu taxaw mm-hmm. ba ci jamonoy buur ya ba nëgëni mm-hmm. boo gisaan eh, ñu lay wax ne la géwél dañ doon am taxawaay boo xam ne taxawaayu journaliste li xew ñu koy relaté xam say kii xam leen géwél di sagal géeram di def yenn yi mm-hmm. am na ñoo xamante yii artistes yi def géwél yi ñoo ko def dañ ko def seen géer xam nañ ni yorut ci mbooloo mi ñu sagal ko mën nañoo yëkkati xaalis sax jox ko pour mu jox leen comme géwél bu ñu taxawee foofu du ñu am problème ak kenn mais pareen saa yi da ngay gis ñoo xam ni dañuy jéggi foofu nag loolu nag du xeet bi yëpp daf ci am ay nit ñoo xam ni ñoom ñooy mhm. def seeni mbir yoo xamante ni bi bokkut ak dara ci li nga xam ni mooy yëf yi comprendre nga même comme li kii expliqué jox na la fi kaaw Hadj Mansour mbay <coughs> mu am taxawaay boo xamante ni taxawaay bu rafet la mhm. ba képp ku ñëw da koy jox cër da koy da nga koy respecté mhm. comprendre mu am statut boo xamante ni bii te ñoom yàlla daf leen def ñu am statut yoo xamante ni bii tey bu ñu xamoon li ñu yor li Omar wax sànq da ko résumé mu parfait mu nekk résumé bu extraordinaire bu ñu xamoon li ñu yore duñ fi nekk di par par loo sax opposition mën na ñëw ñu wax ko leen wax ju rafet pouvoir ñëw ñu wax ko wax ju rafet nit ñi accepter leen ko loolu loolu yàllaa leen ko may quoi comprendre nga yàllaa leen ko may gis nga taxawaay bii nga taxaw nii yow doo géwél yaa ngi dégg te taxawaay bi nga taxaw nii nga xam ni mën ngaa ñëw ci pouvoir bi tey wax ko lu rafet suba nga taxaw ci opposition bi wax leen lu rafet nit ñi accepte nangul la ko ah. comprendre nga ah. loolu mooy li leen war ah loolu leen rëcc nag ba nga jot ci <laughs> ko loolu moo dul yoon duñ si jotaat tey jii loolu ci loolu tey ci mbay beex la waroon rek <laughs> kay saya moom ci mbay beex <laughs> la waroon tey jii mbay beex mënoon noo toog fenn ci ay jamono bi fi Macky Sall nekkee mu wax ñu ne Ousmane Sonko ñëw na tel bërëb mu wax ci wax ju rafet. ok yoo xamante ni Macky Sall sax du ko ci mere. Mm-hmm. yaa ngi ah, ah. ëllëg si biir Macky Sall di ñëw mu wax ju rafet day xam ni kii nii la bindoo. Mm-hmm. lii mooy rôle am. warta wax kenn lu ñaaw. Mm-hmm. loolu mooy li nga xamante ni bii moom moo leen di rëcc parfois. waaw ah, vraiment. waaw daal li mu wax ci li wax ci jamaay wax na wax na wax ju wax na wax ju rafet. non non li mu wax waxut wax ju ñaaw quoi mais xam nga problème bi mooy. nit ñi dañuy rappelé wu yeneen yi nga xamante ni bi jaaroon na fi quoi. li mu leen xamante ni ñu maye. waaw est que yow bu fekkee ni président ab Abdoulaye Wade Macky Sall li ko si dugal mooy discours bu président jo euh, Abdoulaye Wade juumee mu bàyyi ko fa dem est ce que président Amadou Ba na moytoo juum si discours am rek fa bàyyi dem si. <laughs> am déet. loolu hmm. buy buy faqastalu muy dem. mais Amadou Ba Amadou Ba nag faxas na lu ci discours dina ko jafe de <laughs> ak ak bu ngay jafe ay discours Amadou Ba xanaa kañ mu ne ko dégg daa ñu waxal la ne la waaye waaye Amadou moom wax ba faxasalu yombul de du yomb bu dee loolu lay xar xam nga Abdoulaye Wade moom Abdoulaye Wade dafa am tempérament waaw Abdoulaye moom wax dëgg fa yàlla lu ko nit mën a waxal hmm. am na loo xamante ni bi moom buy wax da am Abdoulaye moom buy wax da ngay xam ni moom <laughs> kii la quoi buy wax ak yow comprendre nga maanaam moom li muy wax am na yoo xam ne bii euh, comme li politiciens yi di wax naan jéem a def am na yoo xam ne bii amul amul langue de bois am dafa ay ca tëj. ala ala dafa ala dafa ala sénégalais la c'est pas sénégalais la moom moom wax dëgg fa yàlla. moo tax gis nga bi nit ñi am ci moom du du du dañ. nit ñi dañ ko bëgg waaw dëgg fa yàlla parce que. da ngay xam ni sénégalais la quoi. Ah, ah, ni mu doon yoree dëkk bi comme pas bu yor këram rek. <laughs> yow eh tëjal yow. waaw sant rek ajaratu. daaral sant nañ baax ñu ngi xam ne ñoo ñu doon seetaan di leen gërëm. Eh, di kontaan lool loolu lañ andi woon di ñaanalaat suñu baay bi daal di wax ni. Eh, nañ ñu ko daan woo nañ ko woo. bu président Bassirou ñëwee muy muy joxe kàddu gi daal. muy yor kàddu gi ñu ko daan woo nañ ko woo. ayca nañu la bu baax Baye Assane Mesere.